waaw bu ngeen gisee lii nag alors Dakar international dellusiwaat na ak yeneen FM yéen mbokk annonceurs yi ñiy seetaan li ñu leen xamal ni pour toutes vos cérémonies képp koo xam ne am nga xew-xew moo xam muy safar goo xam ne da ngeen koy waajal ngir waajal li nga xam ni mooy màggalu Touba gi nga xam ne ci lañ jëm muy tombeek fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar bii ñu ne moo xam nga am mariage. moo xam nga am baptême ngénte moo xam nga am conférence ak lu mu mën a doon boo wootee Ala Dakar TV international ci numéro bii di dox ci suuf muy 00 221 77 442 40 39 00 221 77 442 40 39 wala nga woo ci seen site bi muy 3W alodakar point sn boo ci wootee Ala Dakar dana ñëw jëlal leen seen manifestation yëpp. bu ñu ko jëlee ba noppi daañu ko dugal ci site bi dana dugg ci YouTube bi ba pare ñu defal leen ko nag CD ñu defal leen ko clé jox leen ko te dina daw ci télévision bi kon nag seen numéro baa ngoog seen site bu mag baa ngoog yéen ñi nga xam ne yéenay waajal nag maanaam nekk tamit ci biir ci biir weer wi ñuy def safar te ngeen xam ne tey safar gi ñëpp a ngi waajal tey fii ñu nekk nag di leen defal seen bande annonce bi mooy safar gi fi njëkk a def mu nekk fii ci cité. Djily Mbaye ànd koog waa Cité Djily Mbaye jërë ngeen jëf.